بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أعوذ بالله بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di ko ñaanal njabootu ak cheikhul xadim gi yëpp ak mboolem kilifa diine yi ak jullit yi. E, mbokk yi boo leen gisee jataay bi wala kaddu yi li ko waral mooy jëf ju am solo jooju nga xam ne e, bokki taalibe yi bokki jullit yi dañu ko ànd ngir taxawal ko te mu nekk grand prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te loolu nekk loo xam ne liggéey bu rëy la liggéey bu yaatu la te moo di bi nga xam ne dañu koo tànn dajale fi ñooñ alxuraan ci fas yéene leen a teral ci ay bernde teral leen ci ay teraanga ay xéewal ci ay neexal yu takku tam nekk loo xam ne nag lu yaatu la lu bari la ndax bu ñu wootee lee Serigne Touba grand prix bu tol noonu la muy tegtale rek mooy takkoog mbooloo mi ak taalibe yi ngir ànd tabbal seen loxo ci jëf ju rëy am solo jooju ndax du loo xam ne dañoo wax ne rek ab kuréel dafa beru taxawal ko waaye bokki taalibe ñoo ko xalaat yéene nag bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp àndandoo ko ngir ñu dundal ko loola na tax na ba gis nga bi ñu déparé ci njëlbeen gi dafa am ñu jaayante jël ay saari alquran wax ne jël naa benn ñi jël ñaar ñi jël ba jël lim yu bari te benn bu ci nekk ñu joxe ci juróom benn fukki junni ñenn ña nga xam ne it seen kattan mën na leneen ñu def loola jaayante ko waaye xam nga ne bis baa ngi ñëw te la kat incha allahu ci safar di bu rëy bu am solo boo xam ne mbokki taalibe yi dañuy daje ci kër Serigne Touba gi ci Daarul Mannaan nga xam ne am na ñetti fan yoo xam ne dañuy dajale dongo yi ak ñan àndal boole leen ci kër Serigne Touba gi di leen taxawu ci ay bernde di leen solal ay yéere waaye it amaat teraanga yoo xam ne yu takku la war a doon bàyyi ci taalibe yi bàyyi ci kilifa yi jëm ci ñooñ alxuraan ñooñ looloo waral sunu woote bii nag ñuy wax ne képp koo xam ne rek euh, mbegum sëñ bi sa mbéga ndax sëñ bi mbégam mooy alxuraan waaye mbégam mooy màggal gi mooy nga jaayante ca waaye nit ki day benn place bu mu ci mën rek yaatu na waxoon naa ne ki ne dinaa ci jox benn dong añ ak reer waralul ko loolu ab yónnee la ci yow ki nga xam ne waralul na ca solal ab yónnee la ki nga xam ne it am na ca kado boo xam ne daf koy jël ngir jox ko way wattu alxuraan yi yelloo nañ ko ak way ñi di saytoog di leen taxaw te loolu lépp jëm ci liggéeyal alxuraan te loolu moo nekkoon liggéeyub Serigne Touba ndax Serigne Touba amul lenn lum denc amul trésor amul lenn kan kitaabu wal xadiis wal laa jamhu fiddatin wala jamhu dahab bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi looloo waral kon gis ngeen numéro téléphone yooyu nga xam ne mbokk yi joxe nañ ko képp ku am addiye yooyu tabbal rek nga tabbal ko ci am yéene fas yéene bokk naa ci ndam lii nga xam ne jaayise bi nga xam ne bokki taalibe bi dañoo taxaw di ko def ci adduna bi ngir defal ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci alquranul karim ma bokk ci kon ku man lépp na def lépp ku ne la nga mën te tolloog moom nga jëf ko te yéene ca nag yéene ju sell yéene ji mooy fas yéene tool bi nga xam ne Serigne Touba nee na toolam muy alxuraan boo ca mën ne buddi genn ñax nga buddi ko ca saw saawa ga nga ca man a bay nga bay ko ca waaye nga fexe ba rafetal saw mbay te ku ne gis na njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gi ni ñu ci taxawee ci ay jëf yu yaatu ay xalaat yu yaatu waaye génn seeni alal tabal ko ci ci ci mbooleem njabootu Serigne Touba gi waaye mbooleem taalibe yi loolu moo waral nag ñoo ngi soññi bokki taalibe yépp ku xamoon ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ni mu bëggee woon alxuraanul karim wax ne bihi zaala gammi xiina amsaktuhu huda sa uhdi bihi nafsi wa bi bihi sahba kon nag ba ma jàppee ci alquran sama njaqare sama tiitaange sama lépp boobalaa laa moom alxuraan ci lay jube wala ci lay jubale it sama njaboot quraanuhu hifzi wa kanzi abada bihi uzaxsihul ada ay subada kon mel na ni musaabaqa quraaniya lu yaatu la ci adduna bi fu ne ñan ko fay amale waaye tey jii fu ñu mas a dem ndam le day dellusiwaat ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dellusiwaat ci njabootu senegal loolu nag tax na ba tey ñu ne nag dañuy taxawal boo xam ne day ñeel ku tedd ci Ahmadou Bamba tànn ko ci biir weeram yi nga xam ne mooy weeru safar tànn ko ci ñeenti fan yi nga xam ne ca la laxasaay woon wax ne xarit yow ma sabti rabi asar ama si sisin fii bayt la si bannay taxaf fi ardu jolof loolu di nekkat ab fàttali kooku jaayante te ba muy dem téere bi rek la yóbbaale rafiqi kitaabullah wal mustafa nabi wa ashaabuhu fi l bahri ina aduuru kon naal ñoo ngi ciy bokk yëpp kenn ku nekk la man ku mën a am ay teraanga yoo fa indi nga indi ko fa ku mën a jaayante nga jaayante si ku mën a taxaw matériel loo man rek nga def ko ngir ñu taxawal ko bis boobu te kenn ku ne xam na ne lu ñu mas a wootee Cheikh Ahmadou Bamba taalibe taxaw nañ ci bu yaatu kon ñoo ngi ko yëgal ñëpp li ci soññ ñëpp incha allahu liggéey bi tàmbali na bokk yaa ngi koy jaayante ñu ngi koy taxaw fas yéene teral ñooñ alquran waaye jagleel ku tedd Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul bokk yi kon mbir baa ngi noonu numéro yaa ngi noonu yëf yaa ngi noonu ku ci am looy jaayante rek ñu tàmbali nag xam ne agsi na ba noppi ndax yëf yëpp ma ngay jeexee ci ñeenti fan ci weeru safar ci teewaayu njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yëpp waaye ñu defe ko ci Touba al Mahrousa ci béréb boobu nga xam ne moo di Touba Darul Manaan kon mbokk yi woote baa ngi noonu seen bokk seen xarit Gana Messere Maxtaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim alif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 التي رعاية القرآن ذي الأيام